comportement bi mentalité yi mooy gën a gaaw loi yi mhm. moo tax loi ak société dañuy ànd lekk ñu koy adopté nag pour que nit ñi bañ a génn euh, dama gis fii crise yi nga xam ne am na c'est c'est inédit dans ce pays sur le plan politique mhm. maanaam bouillonnement yi am nii daanaka cof ngeen ko sànq dañ euh, journalistes yi dañ ci am responsabilité mooy ne dañoo jéng trop ci wàllu politique politicienne bàyyi yi nga xamante ne ni yi am solo la ci pàcc ci yi nga xam ne dafa war a soxal réew mi loolu nag moom mooy indi euh, li am nii tey mu am politiciens yi nga xam ne dañu amoon ay parti am ay école de parti des universités ak yooyu pour former seeni militants mu am ay tee débat ak yooyu kii mi ngi fàttaliku dans les années quatre vingt tee débat yi ci la génn ci AJ yi ak PA yi ak LLD di ko def di ci waxtaan ak yooyu forme seeni militant ba nga xam ne da ngay am une culture politique démocratique yooyu nag moo manqué mujj bi nag léegi lan moo am mooy xuloo ku gën a rëy euh, gën a rëy waaw yëkkati sa làmmiñ rek ñu ne voilà kii moo am dëkk mm-hmm. te aussi généralement la langue utiliser c'est une langue étrangère ki n'est pas une langue locale mm-hmm. donc dafay wute concept yi dafay wute ci fële pour que nga expliquer ko ci wolof wala ci poular wala ci mm-hmm. joolaa il faut que mu jël lu bari ba léeg sax day am nuance tuuti mm-hmm. donc moo tax journalistes yi am nañu responsabilité di xëcc di bind ci li nga xamante ne ni moom mooy Euh, actualité yi mais surtout sur le plan économique mm-hmm. lu euh, kii bu mel ni soleil mm-hmm. loolu mooy waru garam règle bi moo doon mu gën a diversifier ba ñu topp rek li nga xamante ne ni mooy politique officielle parce que loolu moo indi média mm-hmm. yi muy les réseaux sociaux toppatuñu maanaam canaux yi nga xam ne officiels yi ñu teg ñoom it ñu génn tey ñi nga xam ne moo doon syndicat yi parti politique yi kenn déggatu leen ci yenn revendications yi influenceurs yi ñëw mm-hmm. n'importe qui un prix Nobel de la paix ak koo xamante ne ni du euh, xale bu sixième boo amee euh, ma ki euh, smartphone rek mun na wax ñu dégg ko donc le droit à la parole mm-hmm. donc loolu moo tax journaliste yi am ngeen responsabilité mm-hmm. parce que comme ni ngeen ko xamee il est même dit dans le Coran que nous leur avons envoyé transmis la parole pour pour qu'ils se ressaisissent mm-hmm. walaqad wassalna lahum alqawla allahum yatazakkarun donc loolu mooy journalisme mm-hmm. ñoom seen rôle loolu la léegi nag en ce qui concerne clash bi entre politique kooku moom c'est naturel mm-hmm. surtout ñoo xamante ne nii bokkuñu naanuwaay bi ñuy constituer ku ci nekk juridiquement da nga constituer sa entité lenn moo leen boole loolu mën na dem ba ëllëg mu mu mu wutee loolu c'est naturel il fallait si attendre mm-hmm. léegi nag xam na am na ay circonstances yoo xamante ne ni endogène wala exogène yoo xamante ne participer na ci ba loolu am waaw donc bu dee ci wàllu dialogue bi Macky mu ñoom it adversaire la comme ci ci ñoom mm-hmm. moom it euh, du toog rek di xalaat parce que politique nekkul comme religion wala leneen ci wàllu côté yenn kii yu civilisé yi nga xam ne bien policé ak yooyu politique ay ay dafa laaj cynisme ah, dafa laaj euh, yenn saay sournoiserie ak yeneen yu demee noonu donc yooyu aussi il fallait s'y attendre parce que ci géew bi loolu la laaj tu vois donc da nga war a laaj xam lan mooy intelligence ak lan mooy ruse hmm. waaw fan ngay utiliser yenn manières yi ak yeneen yi naka nga ciy jouer waaw et puis di nuancer muy sa comportement muy sa parole loolu poli politique la parce que li mm. ñu tuddee discours philosophique noonu la amee discours politique discours religieux discours économique ay yeneen yu demee noonu donc euh, am na solo daal yéen en tant que journaliste yi ngeen taxaw ci loolu moo tax correct bu jëlee ay sanctions c'est normal aussi parce que aussi mbir muy évoluer toujours day am ay crise mhm. crise yooyu moom mooy dem nag moo koy per mooy koy fexe ba muy gën a dem muy gën di perfectionné wu mhm. ak loolu loolu da nga koy gis dans toutes les euh, corporations muy muy journalistique wala euh, politique wala feneen fu mu manti nekk loolu du lu du lu négatif loolu moo dem aussi ba ci parti yi crise bi nga gis nii presque crise démocratique la parce que xam nga démocratie idéalisme la idéalisme nag looy aspirer dem ci la parce que ay valeur la valeur yooyu nag ngay dem léeg-léeg da ngay dem a dem ci li ma da wax sànq ci comportement yi ak mentalité yi ni muy changer parce que am na de nouvelle données yoo xam ne am na sociétal sociétal euh, yoo xamante ne ni am na euh, mu war laaj ñu adapté ko bu ko defee ñu xalaataat bu dee ci wàllu loi naka la ñuy tëggewaat mm-hmm. loi yooyu fexe ba nga xam dina adapté wu ba débordement du am donc moo tax am na solo beneen bi mooy ci wàllu fi may euh, kiwee wàllu euh, lekk bi euh, am na solo waaw ci wàllu oignon bi ak yooyu parce que loolu aussi en état prévision la waaw ay prévision ay prospective yoo xam ne état daf koy def ci wàllu dundu consommation bi naka la war a demee stockage yi naka la war a demee ut ay jumtukaay pour au cas bu fekkenteen problème am na ñu man cee taxaw état du xaar ba nga xam ne mbir mi na këtt ne jonn mu ne walla dem uti ay solution ay solution dafa war am à chaque fois parce que ñëpp xam nañ ne euh, muy muy muy culture dafa am saisonnière ak yoo xamante ne ni du du du du euh, prix ci ci ci hivernal la. ak mm-hmm. yeneen yu demee noonu. Mm-hmm. benn bu ci nekk prévoir ko def ci ay stockage sinon même des silos am na ay prix yoo xam ne ay silos la ñuy def. bu dee ceeb bu dee dugub bu dee mboq bu dee lépp. voilà bu dee aussi gaz aussi. loolu loolu day fekk nga nekk dëkk boobu dañuy dañuy dañuy anticiper. exactement c'est que ñun en Afrique amuñu prospective éthique prospective. du ñu koy def te prospective c'est naturel moo yàgg nekk ak nit. Mhm. muy maanaam gisaane. Mhm. gisoo même istixaara. Mhm. di xool ëllëg lan mooy xew loolu di xew naka laa koy mën a fanqe ak yooyu noonu mooy prospective wala lii xewoon na fi nga jàng ci. mi ngi noonu te te mi ngi